nit bu la yàlla mayee nga doon taalibe tijaan sukk ci sa kanamu sëriñ mu jox la wirde lan nga war a def lu dul topp yoon mi donc man ci wàllu politique moom moo nekk sama sëriñ aw ma ñaar aw ma ñet sama sëriñ Macky Sall la tudd ci wàllu politique diine bi nag à la mais ci wàllu politique mooy sama sëriñ lu mu ci joxee comme ndigal rek mu ne lii laa xalaatee ni laa ko bëggee man bu ma kenn laaj xalaat wala mbëggeel li mu xalaat bëgg rek ci loolu laa nekk nag te loolu loolu pour réew la parce que moom moo jaboote réew mi te mbir mi fumi muy bu demee ba yalla nañ yalla mussel ba upp loxo ñëpp dañ ko yëg bu demee ba tëj école yi nañ tok 1 mois 4 avril fête de l'indépendance ñu xam nim ko gëmee en tant que chef de l'État mu décidé amatul défilé fuñ ko défé légui levée du couleur fële ci Tibil palais de la République mom tàmbali na ci bopam li état bi yor nga xamne moko jité ko na ci ndigal leneen lu dem lu dem ci diine bi nag loolu kilifa diine yi lañ koy bàyyee ñoom nuñ ko xalaatee ak ñu xalaat ne ne lii mën nañ ci jàppale askan bi jàppale ci nguur bi yëpp delloo na leen ko loolu seen xalaat la te loolu dañu xaar aussi ñun xam nañu aussi diine ndigal la te yooyu yëpp incha allah ginnaaw yàlla gi xam xam xam nañ ne ñoom ci seen bopp dinañ jóg ak doole jàpp ci mbir mi ni ko président xalaatee ndax ñu ñëpp Sénégal am jàmm ñu ñëpp mucc